أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم mbokk yi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci suñu yóbbalu bis bi xam ngeen ni ci yóbbal bee jàll tàmbalee won nañ ci cër yi nga xam ni sunu boroom subhaanahu wa taala ko booleeg doomu aadama te mu war leen a sàmm fexe ba ñoom ñëpp kenn du ci dem ci lu mu dem xam ngeen ni ñu ngi mujj woon ci ñaari tànk ba waxal ni li ci baax mooy dox jëm ci jàkka yi wala jokk ak bokk wala lu leen nuru te yooyu xam ngeen ni lu ci nekk doon tuyaaba ju bari muy dox jëm ci jàkka nga xam ni day taxaw taxawaayu sarax jokk bokkit ni ki noonu ndax xam ngeen ni sunu boroom subhaanahu wa taala daa fonk lool alalam te ak bokk alali yàlla te sunu borom moo koy tabax fam ko neexe ak nam ko neexe ak ca ko neex kon loola dox di ko jokk day taxaw taxawaayu sarax te yonent bi neewoon na képp kuy jokk ak bokk moo la ameel yii di am ak wér di am ak gudd fan waaye danga am wërsëg woo ko mën a doxe kon tànk fexe bay ci jokk ak bokk wala yu nuru noonu wala dox jëm ci jàkka loolu moo taxan sunu borom sàkkal la ko ñaari bët dee ci xool kiimtaane sunu borom yi te bàyyi xool jigéen ñi kiimtaane sunu borom yi mooy lan masalan man ngaa jëkk ba yàgg say bët nga tàllal say waaram di ko xool xam ne sunu borom ku kéemaane la moo la bindal ab loxo bindal la juróomi baaraam baaraam bu ci nekk tolloowul ak sa moroom beneen bi ci desit mooy ni mu ko defale ay articulation nga man koy yëngal man koy lem man di ci téye man di ci dagg te loola yëgoo bi la ko yàlla di defal ni muy développé yaram wet yëgoo ci dara loolu lépp day kiimtaan yoo xam ni yu ama am solo la ci doomu aadama nga di ko bàyyi xel dana tax nga bàyyi xel sunu borom ni li tax mu bind la nag mooy ginnaaw bu mu la amalee lii te lii amul kenn ku la ko mën a xañ ndax yàlla moo la ko defal nga di ko ci sant ci kiimaanam yooyu waaye sant ga nag mooy nga wëlbati ko di ko njukkale di ko jaamu sa ñaari loxo bu ci laalu xaram mukk xam ngeen ni ci jamono bii nu toll jamono bu doy waar la xëy am réew mën naa xëy tàkk te loxo moo koy waral ndax bu fekkee loxo bi nit ñi di nelaw moom nelawul ma ngay bind écriture yu bare bare bari di ci wax ay mosiba di ci jiñte di ci wax loo xam du dëgg loxo booba na xam ni lataxan sun suñ boroom sàkkal ko ko du bind lu xaraam wala laal lu araam sa ñaari nopp bu ci déglu lu xaraam dee ci déglu alquran dee ci déglu xasiday sëriñ tuubaa yi xaadal lahu laahu maxtaara lahu waaye ëpp naa def mukk di déglu lu xaraam lu mel ni jëw ndax jëw ak kiy jëw kiy jëw ak kiy déglu ñoo yam benn bàkkaar boo koy déglu yaa ki koy wax yéen a yam war na ku ne mu ragal yàlla yaakaar ko waaye sopp ko yàlla day sëriñ saalihu mbàkke yàlla na sunu borom yokk ay leeram nee na képp koo xamante ne ab jaamu sunu borom la nee na war ngaa ragal yàlla ndax soo ragalul yàlla bind na loo xam ne ragal nga ko te fekk na booba boo ragalan yàlla du jëratul ngay ragal loolee nga xam ne mbindeef la ndax saa yoo ragalee yàlla lu dul bindeef rek da lay ragal comme ni ko sëñ waa waxee woon ca téere ba waaye war nañoo yaakaar yàlla ci sunuy mbir war nañoo dëgërloo yàlla waaye war nañ koo sopp ndax sopp gi ñu koy sopp noonu moo nuy jariñ ragal yàlla mooy bàyyi lépp lu mu tere yaakaar ko mooy def lu mu digle sopp ko mooy saxal tuub kon naka ngay ragale yàlla te bàyyiwoo li muy tere naka ngay yaakaar yàlla te doo def li mu lay digal naka ngay sopp yàlla te waxtu wu nekk nga nga nuur ci bàkkaar te doo ko tuub delluwaat sunu borom war na ku ne muy daw yi ñuy bëgg a wax rëy ak xér ak iñaan ndax yooyu lu ci nekk na ngeen xam ne mbokk yi ay ayib la yoo xam ni yu mën a yàq lool la bu dee rëy ayib ju doy waar la ju mën a yàq daanaka loo gis ci bon bon yi rek mu ngi juddoo ci yooyu benn réy ko waral walla añaana ko waral walla xëre ko waral kon yooyu matam moytu la ci doomu adama yooyu nag nit ki buñ koy wax da cee war a peese boppam xool moom fi mu ci toll rëy yàlla képp moo ko jagoo ku ko ca fekk ku ne mu toroxal la kon kenn rëyut ku yàlla laa xaw la wala quwata illa billahi alil azim kon mbokk yi li mooy sunu yóbbalu tey yàlla na sunu borom defal dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu husni ala man bi fat